ñaari baat a ngi nii kilifa gu mag ci réew mi nee na ni ko olof waxee rekk la ko déggee mooy mbokk mbokk la ànd ànd la Ousmane Tounkara mii ànd bi muy ànd ak Ousmane Sonko mbëru gi mu mbëru nekk benn avocat am nekk waxkatam ak influence bi mu am danger la pour Pastef te amul njëriñ bi ci njëkk du waxee xam-xam lim mën ci gor ñi mooy kii juutal na kii ci wanag ba kii tëdd na kii kii njaalo na kii fen na kii sàcc na te doomu aadama bu amee nopp faris du bëgg a dégg lu bon bu amee làmmiñu faris du bëgg a tudd lu bon te nit ñu baax ñépp bëgguñoo déggal doomi aadama lu bon ndax ñu ngay sant yàlla ci seen mbaax ga ñi koy mën a déglu rekk mooy ñi bëgg usmaan sonk te mbëggeel gi ëpp leen doole ba muur seen xel ndax bëgg naa Ousmane sonk mu soppi réew mi kenn ci réew mi di xas waa réew mi di leen saaga du neexub gor waaye amul kenn kuy réeree Ousmane sonk walla ñàkk a d'accord ak moom nga déglu Ousmane Tounkara mu convaincre la ba nga ñëw ci sonk loolu mënut a am su demee nag bay tëriyaa ay politiciens yi nga xam ne adversaire sonk leen su demee ba mun a jiite groupe whatsapp yi di joxe ordul ku ñu war a jàpp ku ñu war a kidnappé ku ñu war a dóor koo xam ne kuy wax ak moom mu ngi lay enregistré koo xam ne mën naa wuññi gor waxtaan nañ yëpp tegi ojo la dëgg-dëgg kooku fenkat bu amul sutura la man mii suma jëmi bopp wax na ci man lu waxuwut ma ne ko Ousmane Sonko maa ngi lay lancer défi Ousmane Tunkara dama bëgg nga woo ma ci télé bu la neex journaliste bu la neex arbitré man ak yow ñu waxtaan ba àdduna xam kan mooy fenkat bi ci mën ak yow ba tey ñëwut pour man nag boo waxalee gor mu ne la woo ma ñu waxtaan war ngaa wax ne àdduna ne la nga doon wax ci gor gi dëgg la wala bu dee yaa fen nga ne ko baal maax ndax régler ci àddina moo gën a yomb ëllëg yowmal xiyam te Ousmane Tunkara mii kenn ku baax ku tekki dara ci réew mi nawlawu ko te kum àndal tey mu neex suba mën na la xas kum xas suba mën na ànd ak yow ma bëgg nag sénégalais yi tontu ma ndax am na kenn ku ñuy roy def ci dëkk bii def ko royukaay di ko topp koo xam ne saaga xaste uñu gor ak waxal ko lu ñaaw la te moom loolu waroon na ñëpp ba mu des moom ndax bi mu nekkee ci fitna ay jigéeni jàmbar ak góori jàmbar ñoo takkaayu seen xam-xam seen alal jàkkaarloo nguur gi ba mu mën a toog Amérique googu tey